الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين mbokk jullit yi noo ngi màggal borom bi taala wa tabarak di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy rëcc rëcc jéggal nu sunuy njuumte noo ngi julli tey selmal ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i sahabaam ak taabiina lahu bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokk jullit yi sunu xutba tey mi ngi tënku ci jarimatu qatlil baghi maanaam crime gi nekk ci rey nit rek te bew rek tax nga rey ko maanaam jàpp ni dund gi daal dund fawukaay la heure bu la neexee rek mën nga jàkkaarloo nit dóor ko bal mu dee nga jàkkaarloo nit jam ko wala sax mu jóge ci ndigal rek nga jóg pour faagaagal doomu aadama dagg seen dund ci àdduna bi loolu ku jàpp ni lu oyof la ku dof nga mbokk jullit yi noo ngi dénk sunu bopp ragal yàlla di ko dénk ñépp te xam ni ragal yàlla mooy yóbbal bi gën ci bi ñuy yóbbaloo yowmal qiyaam ndax yowmal qiyaam lu fa waay indi te du ragal yàlla dana lamb kon ragal yàlla rek moo fa am solo moo tax booy dund fii ci kaw suuf waxtu wu nekk del contrôlé wu ngir bañ lu yàq sa marchandise bi ngay indi yowmal qiyaam bokku na ci li yàq marchandise doomu aadama yowmal qiyam bakkanu doomu aadama ci sa loxo nga fexe ba nga dakkal dundu nit ci sa coobare bopp wala ci sa pexel bopp wala pexel beneen mbindeef loolu soo ko defee yow mi ko def yëgal ni dugal nga ci sa yóbbal yowmal qiyam lu lay tee dem àjjana yàlla ci yàlla musal mbokk yi nañu moytu rey nit ci ak bew rey nit ci ak fuuy rey nit ci ak saay-saay rey nit ngir ni dafa am ci loo wéeru loole sant la nga rey wala kookee sant la nga rey ah déedéet nit yàllaa ko bind yàlla rek moo ko war a rey yàlla mi bind nit moo war a rey nit moo war a joxe li tax ñuy rey nit su fekkee ni li tax ñuy rey nit bàyyikoowul ci yàlla ku mu bàyyikoo ci moom soo ko toppee ci ndigal loola danga dem safara ànd ak moom wala iyaazu billah kon amul benn njëg lu jar lu mel noonu te mbokk yi xam nga rey nit ci tooñ wala rey nit ci ak mbew dafay sabab nit perte yowmal qiyaam te dund bii ci àdduna yàggul kenn du fi dund téeméeri at wala ku ko fi dund ñu néew la liggéey boo fi mënti am waay waay fexeel ba bu liggéey boobu tax ngay rey ay doomu aadama bu alal tax ngay rey ay doomu aadama nit da ngay xalaat balaa ndigalal nit ndigalal ki bind nit ndax ndigalal ki bind nit ma nga lay xaar yowmal xiyaam te yowmal xiyaam atte ba fay ñëw te mi ngi ñëw ci kanam kenn ku jàkkaarloog loolee da nga xam ni jël bakkanu doomu aadama loolu lu très très dangereux la te beneen bi mbokk yi jël bakkanu doomu aadama day xañ nit àjjana de day sabab nit sax jahannam wal waliyadu billah mbokk julit yi doomu aadama di rey moroomam ci lu dul ndigalal sharia loolu na leen birni ak bew dong la ak bew dong la du dara lu dul ak bew ak ñàkk kersa ñàkk teggin waaye ñàkkee teggin sa borom bi wax ni nañu ormal doomu aadama yow nga jàkkaarloog doomu aadama jam ko paaka wala nga dóor ko bal au lieu de quoi ngay jël bal di ko dóor mbindeef muy daanu sa kanam ngay jàkkaarloog nit di ko dóor bal muy daanu sa kanam tey yaa ngi kontaan yaa ngi bëgg ndax am nga lu la aar fii ci àdduna waaye yowmal qiyaam kan moo lay aar kan moo lay aar yowmal qiyaam ci bis bu la yàlla nii bakkan bii lu tax nga rey ko ak liggéey boo mënti am amul benn liggéey buy daganal rey bakkanu doomu aadama ma ne amul benn liggéey buy daganal jël bakkanu doomu aadama amul képp ku topp sa liggéey ba jël bakkanu doomu aadama sa responsabilité la yowma alqiyam sa loxo dana takk deret te bu sa loxo takkee deret yowma alqiyam da nga ànd ak waa safara dem dugg safara kenn du la dimbale wal iyaasu billah mbokk yi soppe yi doomu aadama yàlla da ko sopp da ko teral da ko yëkkati loolu moo tax bi yàlla bindee nit inde ko ci kaw suuf borom bi bokkoon na ci li mu ñu wax ni mooy aar seen bakkan ñu tëral li ñuy woowee qisos walakum fil qisosi xayaat yàlla nee na bu ngeen bëggee dund bu dal dund bu équilibré ku nekk mën a taxaw def la mu war a def il faut fay yu am ku rey dañu la war a rey feeg loolu amul jàmm du am mais bis bu nu xamee ne ku rey ñu rey la kenn dootul fooyee rey mais tey jël nit ñi def leen comme ay bëy def leen comme ay ginaaru élevage def leen comme ay picc ci àll bi di jàkkaarloog ñoom di leen dóori bal di leen rey di rey ay nit képp kuy def loola yëgal ni tàggale nga sa bopp ak àjjana yàlla ji jublu nga buntu safara wal iyaadu billah mbokk yi ci yàlla bakkan doomu aadama kenn waru koo rey rek ci bànneex kenn waru koo teg rek ci farfarloo diw laa àndal moo tax ma rey diw laay aar moo tax ma rey diw moo ma jiital moo tax ma rey mais loolu dafa tuuti dafa tuuti dafa oyof kenn amul justification même ci adduna amoo justification kon ci àllaaxira nan ngay amee justification diw moo ma ni rayal ma rey loolu lu très grave la te nit war na ko bàyyi xel démb man ngi ciy waxtaan ak benn góor gu ñëwoon ci suñ jotaay bi fii góor gi ndeysaan kilifa la woon ci gendarme garde rapproché la woon ñuy waxtaan bi ñu defee liñ doon ba pare ma ne ko waa góor gi man am na benn question boo waxoon bu ma jaaxal la de mu ne ma ban mu ne ma da nga ni woon ci armée ak li ko nuru su commandant joxee ndigalu rey leen rek yow boo reyee mucc nga quoi parce que ordre nga demee man ko waaw dëgg la fii ci àdduna day ordre la mais ndax ordre la ci ordre àllaaxira yi mu ne tekk ba ci ak mu ne waaw foofu nag àgguma fa xaw ma lu fa am ma ne ko ñun àgguñ fa mais xam nañu lu fay am ndax yàlla moo nu ko wax amul benn ordre sa ordre supérieur bu la war a digal ne la dóoral rayal nga ray bis boo ko defee fii ci àdduna am nga ku la aar de am nga ko mais sa supérieur boobu yowmal qiyaam yéen a tolloo da taxaw mu taxaw nekkatul sa supérieur ki leen bind tere woon leen loolu waa pourquoi nga jël ndigalal nit bàyyi ndigalal borom bi borom bi bind nit ne bu leen ko rey ci lu dul lii nit ni yow ne la rayal ndax may sa supérieur te supérieur boobu di nga taxaw mu taxaw yéen ñaar parce que responsable nga responsable nga de li ngay def doo xale magum jëmm nga kilifa nga da nga majeur bala ngay dund ci kaw suuf wala ngay àgg fi ngay àgg da nga amoon diine boo jël diine boobu pourquoi ngay bafuwee ay ndigalam di jëfee ndigalal àdduna pourquoi sa diine ngay bafuwee ay ndigalam mooy ngay bafuwee ndigalal yàlla mi ne bul rey nit ngay bafoué ndigalal yonent bi ne bul rey nit nga jël ndigalal sa supérieur mu la la reyal nga rey ci au nom de quoi nga war a reyee nit est boo reyee di nga am lay ci kanamu yàlla loolu mbokk yi lu mat a bàyyi xel nit ñi léegi dañuy doxee nu leen neex rek wallahi ñu ngi fii di def te ñu xalaat fële mbir mi fële la de mbir mi yawmal qiyaam la كجل بكن دوم آدم تستيف والله الذي لا إله غيره بثنا نيودا مات سبارم يوم يعد الظالم على يديه برم بلين بسبنت كي تونيون كي ريون كي دفن دانا مات نياري بارم دانا كو لن لا يوخ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا اكا نيخول متوك اي اوردر يونتبي صلى الله عليه وسلم اكا نيخول متوك اي اوردر يالا تاي سما كوماندال ميغي ني سما سيف دي راشي ميغي ني تاي مولو تي ميرمي دارا ماغي ني تاخاو ماكو ديف داغا فوك ني يالا دالاي وغا نيو مو سا سيف مو لاكو سانت ديمال موتشي غا كوم تي ادون لي مو امي في تي ادونا بولا سا سيف جوخي نديغال غاراي غاراي بو دابي تريبينال داغاي موتشي باكا سا كوماندال مو لاكو سانت مي تي يالا لولو امول دي parce que tu es responsable tout que lepp loy def yaay responsable yaay taxaw ci kanam yalla ya koy assumer parce que ya jël lolu taxaw ci mbokk yi ray bakkan ñett dong ci la ko sharia tek te buñ ñe sharia moy yalla mi bind nit ne bu len ko ray ci ñett yi la joxe ndigal ne bu ko nit defé war nañ ko atté ñu ray ko ci atté islam يونس بي صلى الله عليه واله وسلم وخنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يونس بي نينا دغنول دريتو دومو ادم بوي وخ اشهد ان لا اله الا الله دي وخني اني رسول الله <coughs> موي جيكل جيل بكن دومو ادم لولو نيت امول نينتال دغنول نيت جيل بكنو نيت te boobu àtte bi muy wax mooy état lay wax état moo am droit jël bakkanu nit mooy état boo xamante ne dafay àttew islaam baa mu jël incriminé lu demee noonu di ko àttee ci ñett yii rek la dagan yàlla nee na yow état ci ñetti yii rek laa la jox ndigal nga war cee jël bakkan yow état par individu sax kenn amul droit jël bakkanu jàmbur kenn amul droit jël bakkanu jàmbur loolu islam da koo compagnie ak yu ko tëral yoo xamante ne état moo koy tëral teg ko mën koo aar ñépp mën cee ànd ci ñetti yi ban la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na neena mag mu njaaloo mag mu njaaloo moo xam góor la wala jigéen su nee mag nag jubluwu ci ay at li mu ci jiblu mooy ki takk jabar wala ki musa takk jabar wala ki yore jabar ñu takkal ko jabar ca jàkka ja wala ñu takkal ko ci takk bu islaam reconnaître ba mu yëg ni kii takk na jabar kookee saa bu bàyyee jabaram dem ci beneen jigéen islam nee na bakkan boobu nañ ko fi jëlee ndax moo raw virus sida moo raw virus corona ku yées la ku mën a bàyyi soxnaam dem fiq ak beneen jigéen borom bi nee na kooku nañu dog baatam yàlla subhanahu wa taala lan moo tax mu tànn fay bu mel nii di ko fay ku mel nii parce que dafa wor toute une société dafa wor jabaram wor baayu jabaram wor yaayu jabaram war ndeyam war baayam war société am war waa jàkka ja takkoon sëy ba kon kii c'est un dañ ko war a àttee rey bu nu ko reyee ëllëg ñi am jabar kenn dootul xalaata piis jigéen ñi am jëkkër mësa sëy kenn dootul xalaata nekk mais bi ñu bàyyee loolu tey looy gis adultère adduna bi yëpp adultère da ngay gis ki takk jabar mën a dem di séq ak beneen jigéen nga gis ki am jëkkër mën a dem di séq ak beneen jigéen lan moo tax parce que la islam doon aaree loola dañ koo dindi jël ay atay tubaab teg ko fi loolu moo ñu indi problème bu mel noonu loolu moo tax dañuy wax a wax ba sonn mais adultère pour mu jóge fi day jafe parce que bakkan dafa bëgg caaxaan inna nafsa la ammaratun bisuu illa ma rahima rabbi kon borom bi ne na bakkan boobu rek la ñu war a rey bu valable pour ñu rey ko bakkan boobu bu ñu joxee ndigal ci ne nañ ko rey ku ko rey au lieu que ngay am bàkkaar mais tuyaaba ngay am tey bu ñu àtte woon ku mel noonu juge bi àtte ko ne kii kat dafa def lu islam tere dafa def lu yàlla tere dañ koo war a rey bu ñu jëlee kenn ci soldaa yi wala ci gendarme yi demal nga dóor ko jaasi wala nga dóor ko bal kooku gendarme boobu yëkkati jaasi di ko ko dóor au lieu que muy am bàkkaar mais tuyaaba lay am lan moo tax ndax àtte yàlla la fi teg mu ko def loolu mu nekk benn ñaareel bi ci ki ñu la war a rey mu ne ñaareel bi mooy an nafsu bin nafs jàkkaarloo nii da rey ko rey nit noonu yàlla nan ku rey nan ko rey rey amul benn pen bu ko mën a faj lu dul rey boo ko dojoon kaso cinquante ans bu génnee it <coughs> taxul mu réglé mais réglé bi gën a gàtt te borom bi wax ko mooy dafa rey ci coobareem wala ci coobaral ka mu àndal rey te yàlla santaanewul rey boobu moom ak ko sant rey bi yëpp lañ leen rey loolu mooy atte bi moom ak ka ko bi yëpp ak ka ko pour mu rey yëpp lañ leen boole rey su ko defee yére bu tilimee xamuñu fan la tilim bi nekk nañu ko dugal ci ndox fóot fete lépp set kon rey bakkan kenn waru koo fooy an nafsu bi nafs ku rey nañu la rey bis bu ñu ko defoon nit ñi kuy xëy quatre heures du matin doo tiit doo jaaxle da ngay génn heure bu la neex dem mais ñun tey xoolal quatre heures boo waree génn sa kër liggéey yaa ngi tiit ku la lixee doo ko tala ku wax ak yow doo ko fay parce que yaa ngi ragal mu agressé la rek lan moo tax parce que dañoo teggi àtte boobu indi àtte doomu aadama beneen bi at taariku li diinihi al mufaariqu lil jamaa borom bi nee na ku murtad jékki ba mu neex la ne nekkatuma jullit jékki ba mu neex la nga dem dugg ci secte boo xamante ne du secte bu islaam xam muy secte kéefër junj nag doy na borom xel ku nekk xam na lu mel noonu am na secte yoo xamante ni ku ci dugg da ngaa murtad secte yu mel noonu boo ca duggee dañ la war a téye dóor la bal wala ñu dagg sa bopp parce que yow xamatoo looy représenté te buñ la bàyyee nga yàq réew te loola nga nekk bu buñ la ci bàyyee mën nga caa dugal ñeneen kon nag ñett ñii ñoo valable ñu rey leen ñett ñii ñoo valable ñu rey leen amul ñeenteel amul ñeenteel allahumma lu dul lenn ci boroom xam-xam yi dañu wax ni su dee am ñeenteel mooy dëkk bu ñu bett guerre am tey jii bu ñu bettoon guerre am wax dëgg yàlla su booba nag kenn ku nekk jóg su boobaa même bu ñu reyee da ngay am tuyaaba wala nit tëb sa kër fekk fa bëgg laa rey nga rey ko man maata duuna dami fa huwa su nit sa kër la dugg bëgg laa rey nga reyanteeg moom rey ko loolu loolu dafa bokk ci yi nga xamante ne exception yi la ko mais trois yi ci lañu war a reyee bakkan mbokk yi rey nit dafa foor de amul benn tenue bu koy mën a légaliser amul tenue bu mën a légaliser rey nit a xanaa fii ci àdduna mais ci àllaaxira yow mi sol tenue bi ba ñu légaliser la nga rey nit ah xoolal ci li koy def de lu mat a bàyyi xel la de mbokk yi ñëw na ci sahih muslim yonent bi sallallahu alayhi wa ne la zawalu dunya ahwanu ala allah min qatli rajulin muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi ne àdduna yépp jeex moo gënal ñu rey benn bakkanu jullit allahu akbar la zawalu dunya ahwanu ala allah min qatli rajulin muslim àdduna yépp jeex moo gënal yàlla ñu tiim bakkanu jullit xale la walla mag la góor la walla jigéen la di ko rey mbokk yi waaw ndax rey bakkan ab loxo àttan na ko ab bakkan ay question ngi nii ñuy posé te jàpp naa ni tontu bi ku nekk war na koo xam mooy waaw ndax nekk président de la république mën naa daganal ngay rey nit loolu question la ndax nekk bi nga nekk président dana dagalal nga rey bakkan loolu benn question la ñaareelu question bi ndax république république yàlla dagalal na ko mu rey lu dul ci ñett yi loolu question la ñeenteel bi nekk ministre de l'intérieur ndax mën naa tax nga reylu ay nit wala nga joxe ndigal ñu rey nit walla nga rey nit di mbubboo rek ne mbubb man ministre de l'intérieur la loolu ndax mën na nekk déedéet mbokk bi nekk procureur de la république daf laa may sañ-sañu nga rey ay doomu aadama joxe ndigal ci nañu duur ay bal ah? ndax loolu mën na nekk préfet de la république ndax mën naa tax nga ni rey leen jamono ba nga nekkee préfet wala procureur joxe ndigal ñu rey bakkan yi wadd yépp yow yaa yaa tax ñu rey leen sa loxo set taq na dëpp ak deret waxuma fii jaaduna de mais ca kanamu yàlla looy wax yàlla république bi moo taxoon ma ni nañu rey préfet fooy jaar ci sa borom fan ngay jaar procureur fan ngay jaar ministre de la république fan ngay jaar ci ndigal li nga ni nañu rey bakkan yi fan nga koy layee nan ngay taxawee ci kanamu yàlla ne ko ministre laa woon moo tax ma joxe ndigal nan ngay taxawee ci kanamu yàlla ne ko préfet laa woon nan ngay taxawee ci kanamu yàlla ne gouverneur laa woon moo tax ma rey loola ndax di nga ci am lay ci kanamu yàlla loolu mun mënta daganal jël bakkan de déedéet ta daganal ndax nekk soldat dafa tax rek ñu ne la reyal nga rey nekk policier dafa tax ñu ne rey nga rey ngay dégg kàddu yoo xamante ni dangay ngay tiit lii may wax nii waxuma ko de dama déglu benn benn interview ku ñu doon defal benn kii muy wax mu ne dafa dégg koo xam ne dafa taxaw rek chargé tiré chargé tiré même sama góor gi dem waxtaan nag ci lu mel noonu mu ne bu jamono jafe-jafe amee kilifa bi dafa war a taxaw bon bu joxee ay ndigalam ba pare chargé gars yi chargé tiré gars yi dóor ma ne ko lan la ñuy tiré ay picc wala ay mbóot ay picc ay ndóot mu ne ay nit subhanal ay chargé tiré ngay chargé di tiré ñan ngay tiré ay bakkan biir bakkan yooyu gis xamoo ci ku yàlla gërëm bakkan yu deful dara nga war leen a rey ni nga leen di rayee lan moo koy justifier lan moo lay justifier bakkan yi nga rey yow nga mën a taxaw en âme et conscience jàpp ni ñii ñuy rey ay lëppa lëpp lañ subhanallah subhanallah waxuma la moom mi ko digle mais même ñi exécuté loolu dañoo am lay ci kanam yàlla dañoo am fu ñuy taxaw ci kanam yàlla amul kenn ku ciy mucc parce que ndigal bu jaarul yoon kenn waru koo jëfee waxuma nag ci suñuy luwaa ak suñuy atte man ci suñuy diine laa wax su suñuy diine moo tiim suñuy loi ak suñuy atte moo ko tiima ah. ndax kenn ku nekk ci ñore loi yi atte am na lu lay xaar sa papa dee ñu suul ko de <laughs> te bu demee loi yi Sénégal du ko attee de sa maam dee nañu suul ko de bu demee loi yi Sénégal du ko yow mii sax yow mii joxe ndigal boo tiitee dangay ngay jàngalu alquran da nga naan nañ la jàngal nañu la ñaanal na la yàlla yërëm loolu ngay ñaan pourquoi nga jël ndigalal lu du ku dul yàlla di rey ñi yàlla ne bu ñu ko rey nga foog ne boo tax yàlla ay kaamil mën na ci dara no loolu mënu koo dindi mbokk yi ndax nit am na droit waxuma la sax nga nekk homme de tenue mbindeef ni yow di la fay nga jël ay nit di leen rey xaw ma am na wala amul mais da koy dégg ay ñoo xam ne ñu naan ay nervi lañ jël ay bal di dóor ay nit ñoo xam ne ay sniper ah di di di rey ay nit ci lan quinze mille francs cent mille francs deux cent mille un milliard jarul bakkan cent cinquante mille milliards jarul jël bakkanu benn xale bu ndaw jaru ko mais nga jël sa jaasi di dóor ay nit affaire criminel yooyu jël sa bal di dóor ay bakkan affaire criminel yooyu yow def nga ko yow ci sa bopp mais xam nga ni li nga def yaa ko gën a xam am na lay xaar sa kanam borom mbokk yi ci yàlla kenn ku nekk ci ñun na xam ni moo xam président la moo xam ministre la moo xam haut commandement de la gendarmerie la wala armée la wala keneen kenn ku nekk na yëg ni lépp loo def yow yaay responsable bi ci kanam yàlla te gis nga yàlla boo defee lu jaaduwul yaay njëkk atte sa bopp dootoo tranquille dootoo nelaw dootoo noppalu da ngay dugg sa néeg tëdd clim yi tàkk lépp lu upp nit ñi di nelaw yow nga tëdd doo nelaw parce que bakkan yi nga tuur xam nga ne yaa ko tuur bakkan yu la mën a sonal ci fii ci àdduna àllaaxira ana nan ngay def ak koo mënti doon da nga taxaw ci kanamu yàlla sa taqumu amaamal malikil jabbar da nga taxaw ci kanamu borom bi nga xam ni moo la bindoon te borom bi mbëru lool dana la atte ak diggante ka nga rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne awwalu ma yuqda fihi bayna annaasi yawma alqiyama fi ddima dafa am ñaari awal nee li ñuy njëkk a àttee nit ñi bis pénc mooy deret yi dagg na ko dóor na ko rey na ko gaañ na ko loolu la yàlla njëkk a àttee yawmal qiyaama am beneen xadis boo xamante ne dafa ne awalu maa yuxaasabu alayhi al abdu yawmal qiyaama as-salaa ñaari awaliya yooyu bokkuñu bii sa digganteeg sa borom la mooy julli waaye bii sa digganteeg sa borom la loolu la ñuy njëkk a àttee yawmal qiyaama yow mi jëloon bi yow mi jëloon bi ne tuy nit wala nga tëb ci miiru kër jàmbur rey fa nit wala nga jàkkaarloog nit rey ko dóor ko bal li ñuy njëkk atte yowmal qiyaam da nga taxaw te li gën a danger mooy yow mii rey moo xam commandant nga moo xam MDL chef nga moo xam policier nga moo xam loo mënta doon maa ngi lay retenir di dellu si dalal teeyal jaru ko de liggéey bii jaru ko de liggéeyu aduna bi jaru ko de teni bi <laughs> non jaru ko jaru ko jarul bakkanu xale bu est ce xam nga yalla li tax mbiram doy waar xale bi dogo juddu ak mag mi am 100 ans ño bokk ben atte ci ray bis bo ray nit nga ray nit ko xamni deful dara lu justifier ñu war ko ray, am nga problème de te yow mi def formation war nga xamni ray ken santu ko war nga ko xam de kenn santu la dafa am luñ la sant mooy fexeel ba dalal nit ñi waaye jóg di rey jóg di rey loolu moom amul dara lu ko mën a justifier ci kanamu yàlla na nga tey de yawmal qiyam suñu indee jahannam borom bi ñëw malaaka yi wër ñu wa jaa rabbuk wal malaku saffan saffa وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أن له الذكرى préfet tey ngay fàttaliku la nga defoon fan lay jaar gouverneur tey ngay fàttaliku la nga defoon fan lay jaar président de la république tey ngay fàttaliku la nga defoon fan lay jaar au commandement de la gendarmerie générale tey ngay fàttaliku anna lahu zikra xam nga loo cay teg tëni bi réer na la grade yi réer na la yowmal qiyaam amul tëni amul sol yére amul sol mbaxana amul sol dàll góor jigéen mag ndaw jinne yi malaaka yi kenn du borom bi subhaanahu wa taala war a teg tirbinaalam bi nga xamante ne ci maandu lay tege ci maandu lay tege iqra kitaabak nan ngay téye sa fooy yowmal qiyaam nga ne yàlla général la woon maa joxe ndigal ñu rey deux cinquante personnes maa joxe ndigal ñu rey quarante personnes maa joxe ndigal quarante mën nga koo lay ci kanam yàlla yaa koy liiran ah, kenn du la ko ne iqra kitaabak yow nervi bi ñu fay vingt mille quinze mille cent mille nga dugg ci lu sa yonnewul di rey ay bakkan sa feuille loolu dina ci dugg ndax 15000 francs jar na bakkanu nit ndax jar na ngay pes nit ndax jar na ngay yëkkati bant di ko dóor nit ba bakkanam jóge ci simple nervi lan mooy nervi cest a da ngay tomber dégg baat yoo xam da ngay rus ci république ay nit mën a dugg ci loo xamante seen yoon nekku ci di ci jël ay bakkan subhanallah ndax xam ngeen li ngeen di dugg lan la keroog ba ngeen di fàttaliku moment bi bu ñuy wax ak yéen du ngeen dégg ndax am na ku leen aar am na fu ngeen féete moo tax ñoo ngi fàttaliku bis ngi ñëw boo xam ne kenn du aar kenn ñëppay yem ñëppay yem bañ ne ko ba njool sax amu fa ngàttaan am fa ñëpp fa tolloo ñëpp fa tolloo borom bi dafa maandu ba yowmal xiyaam amul ku njool amul ku gàtt borom bi dafa maandu ba yowmal qiyam amul ku wér amul ku feebar borom bi dafa maandu ba yowmal qiyam amul kuy soox amul kuy raam borom bi dafa maandu ba léppay tolloo allahuma ludul quelque exception quelques exceptions te loolu xutba bi moo tax mënuñ cee dugg mais dinañ ci ñëw beneen yoon ñëpp taxaw la njëkk a àtte yow mi rayoon nit ka nga rayoon na ko dóore woon bal bi tuy yi ci jëbi wala nga ne ko paaka dabuj wala nga dóor ko fenn muy naaj noonu lay pondéer ak lonku sa kaw moom ma nga rayoon qudratullah moo koy yéegloo kàttanu yàlla moo koy yéegloo xam nga kii sàcc la kii sàcc la xëccoo lay indi mais bu ñu la nee niib téye sa loxo fi ngay sàccee lay amut léegi kay baal ma rek moo fi des ak dimbalam noonu la yàllay def ñëpp ñu rey nit ku nekk da ngay da lay tiiñal te ku ñu tiiñal amoo foo jëm ki nga rey day yéeg sa kaw bu dee da nga joxe ndigal ñu rey ay nit onze personnes xaj nañ ci sa bopp benn nit sa xajul sa mbagg yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ne nit ñi ki nga rey day yéeg sa kaw deret di tuuru allahu akbar yow mi nga xam ni yaa joxe woon ndigal ñu rey yow mi nga xamante ni yaa ni dara newu ci rey leen fi àdduna la am naa ku ma aar laa ilaha illa allah ndax am nga alal boo fayee yow man xiyaam amul fay xaalis de su doon sax am na fay xaalis say compte nga ubbi ko nga fay mais yow man xiyaam amut waaw yawmun la bayun fihi wala xullatun wala shafaa amul foofu xaalis bu la garanti moom amul yowmal qiyaama maada taqulu li rabbik yaa gouverneur lan ngay wax sa borom maada taqulu li rabbik yaa préfet lan ngay wax sa borom maada taqulu li rabbik yaa procureur lan ngay wax sa borom maada taqulu li rabbik yaa président lan ngay wax sa borom maada taqulu li rabbik yaa général looy wax sa borom looy wax ñépp ngi tëdd sa kaw te yaa leen raylu yaa joxe ndigal ñu rey leen ñu ngi sa kaw ba pare naan yàlla yaa rab isal hada fi ma qatalana allahu akbar loolu la ñu wax di la joxoñ te ñu ngi ci sa kaw ne yàlla yàlla ne leen naa mu ne laajal kii lan la ñu war a rayee ba raylu lan moo tax mu coupé suñu dund lan moo tax mu dagg suñu dund lan moo tax mu lor suñu ndey suñu baay lan moo tax mu lor ñu fan la ko teg rabbi al hada fi ma qatalana dret ji siit sa kaw di tuuri di sottiku munoo taxaw naan ay yàlla dimbalam ay yàlla république moo ma ko santoon ay yàlla dimbale ma ay yàlla dañ ma koo joxoon digal déedéet loolu amul yowmal qiyam loolu lañ lay wax fekk borom bi teg na bastil bi atte ana gis yaa doon atte ku dugg yaa ko dugal ku la neex nga tëj yaa ngi taxaw foo jëm foo jëm yaa ngi taxaw tey fàtte nga ñu tey jóge nga ci république nekkatoo ci république de yow mal xiyaam moom mënoo faa nekk juge bañ na ko ba yàlla jëlu fa kenn mu nekk juge jëlu fa kenn mu nekk bâtonnier jëlul sax yonent yàlla mooy àtteel boppam allahu akbar mooy àtteel boppam foofu rek la mbaxana doonee benn dafa am sax ñu benn góor ne ma déedéet bu leen di waxee noonu <laughs> ndax loolu moom ëpp na mais misaal te misaal boobu sax jarul joxe ay mbaxana doon benn dem ñii summi mbaxana sànni ñuy dox kenn rek di décider yowmal qiyaam la am keroog ñéppay sukk jaaxle tiit ñi rayoon nit ñañu rey ñépp lonk seen kaw borom bi ne wa nadaw almawaazin alqista li yawmi alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين برم بنا وندع الموازين القسط يلا لنا بستل البماند بنا مقوي تك كوراي ني تك لا فلي كو توغ ني تك لا فلي ني امون دوله سي ابيو دي ديسيد نيب تك نان لين فلي tey fii ñëpp ñoo yem fala tuzlamu nafsun shay'a yàlla nee na fii dee fu fi tooñ kenn ñëpp fi yem yomal xiyam ñëpp a yem amul tooñ kenn du tooñ moo tax gis nga maandu bu amee ci dëkk ñëpp am jàmm bu amee justice am ku nekk xam lii sa droit ñëpp ay dox ci jàmm mais bu maandu amul ku ne féetee fa la neex di àttee bakkan di defee bakkan lu la neex defal yaa géré mais ëllëg fële mënoo koo gérer yow man qiyaam yàlla du téye kenn ne nañ ko yóbbu fenn muy kaas àdduna léeg-léeg nga téye nit jaay ko doon di ko yóbbu kaso même boo xoolee sax da ngay gis léeg-léeg ñu téye ñoo xam dañ leen di yóbbu kaso ñuy kaas naan leen c'est pas normal defu leen yoon yow mi ko téye xam nga ne defoo yoon mënoo ci dara mais yow man qiyaam loolu amut borom bi ne wa in kaana misqaala xabbati xardalin atayna biha lu ku nekk def bu tolloo nag dugub dugubu picc ñu toj ko ñeenti yoon benn bi yàlla nee na dañu ko koy ñun wa kafa si xaasibin yàlla nee na ñun rek ñoo mën a àtte ñun rek ñoo mën a audité kenn du rëcc làqatu rey kenn yëgul dinañ ko yëg de wal ko posan lin kenn yëgul <laughs> dinañ ko yëg de yàlla daa li ngay def defal rek nga foog ni léppay feeñ lépp la yàllay feeñal ba nga jëlee ndox ma def ca poson jox ko nit mbaa nga def ca lekk mucc ci àdduna ñëw fi bon pourquoi ñu roy ko pourquoi nangam nangam nangam fii la de fii fii fii la yem mais day feeñ de yéen a ngi dégg le premier ministre Côte bi gaañu coow laan commencé génn dañ ko empoisonné nangam nangam yow yow affaire état lan moo ci jar rey bakkan ki la war a remplacer lan moo tax nga rey mais yàlla bi la fi teg dana fiy jëlee bu la fiy jëlee ku ko neex ko programme yàllay tànn ku ko neex tegal ko boppam boo naree bañ li yàlla tànn yàlla nappaaje la geneen ñëw toog sa kaw kon dalal dalal jarul jarul bakkan njiit jarul bakkan adduna bi jarul jël bakkanu nit borom bi ne wa man yaqtul nafsan mutaammida borom bi nee na képp ku rey ba man yaqtul muminan mutaammida ku rey jullit te tey ko fa jazaauhu jahannam yéen nervi yi lay dénk de yéen adresseur yi yéen lañ koy dénk de saay saay yi yéen lañ koy dénk de yéen ñi foog ne ray bakkan dafa simple rek nañ la fay rek nga ray wala nga def lu neex <laughs> borom bi nee na ku ray jullit te tay ko xam nga luy sa fay fa jahannamu khalidan fiha borom bi nee na sa fay mooy jahannamu te fa sax de yàlla nañ ci mbokk yi bakkan dafa for dañ ko war a aar dañ koo war a aar bakkan du fowukaay kenn amul ndigal ci jël bakkan ak lu mbir mën a toll kenn amul ndigal ci rey bakkan xanaa légitime de défense bu amee buñ la naree rey nga wëlbati kala la rey nga rey ko loolu mun naa nekk waaye mbokk yi loolu lépp bu paase nañu yëg ni suñu réew toll na ci jamono yoo xam ni su ñu amul ay manager yu dal mooy fitna bi danañu topp ba ay at te wallahi lidi la ilaha ghayru yag na ko wax fi ci ay khutba xam nga nit ñi nag xamuñu wax li ñu xam rek moy na tasar rek mu tass mais yàgg naa fee léebu di wax ay wax yo xamni ni fu ñu jëm yàlla buñ fa ag bis bu fa agge bis buñ fa agge yàlla xamna dootu ñu tane burkina faso duñu tane côte d'ivoire duñu tane dëkk yu ñu wër ñun dañoo amoon chance bu reuy moy bu problème amé ñu tok waxtaan ñu toog waxtaan kilifa yi génn ñëpp génn ñu waxtaan ñu am réconciliation nationale mais bu ñu demee ba loolu mënatul am ba nga dégg léegi ay ndaw ci internet bi naan sëriñ fi wax leen lu ko mooy bu ngeen ñu waxatee du ñu dégg kon nag sëriñ yi tamit xam naa ne boo ko waxee ñu saaga la man moom faaleetuma saaga mais sëriñ si lañu war a def defuñ ko ñu baal ma nag ñu baal ma ku nekk seen taalibe baal ma analyse la rek que je war a def defuñ ko dëkk bu tàkkee doo toog naan maa ngi woote ci suuf da ngay génn ci biti wax ñépp dégg xam ni wax nga borom du am lay doo am lay keneen du am lay génnal wool RTS wool télé yi nañu toog man la xalif général diw lii am ci dëkk bi tag leen ko ñépp xam ni wax nga nga set ñépp set waaye boo nee mi ngi wax ci suuf mi ngi wax ak moom yooyu yëpp du wax am nañ fi kilifa boo xam ni yàlla na ko yàlla jéggal yërëm ko ku ne xamoon na ko jarul tudd ku ne xam na ko su problème amee ñëppay lu mel noonu mooy wax ji génn leen wax leen su ngeen waxul bu fitna ñëwee ay du yam ci bopp borom ay bi ñëw ba ay bakkan daanu ci suñu teeloon wax est ce que dina am su ñëpp jógoon est ce waaye ki ñuy waxal bu déggoon ndax lii dana am su fekkee am na su déggoon ndax lii dana am déedéet bakkan yi ci tuuru mënoon na bañ a tuuru mënoon na bañ a tuuru ñi nga xamante ne ñoo gérer service d'ordre suñu defoon la ñu war a def ci sama yaakaar man mooy lii du am bu ñu encadré woon ñi nga xamante ni dañuy marché def seen yëf donte seen yëfu àdduna ñu encadré leen lii du am marché pacifique ñu jóg wax seen naqar lii du am mais bu ñu bëggee toog jaamaarloo jàkkaarloo ñii di yàq ñii di dóor ñii di toj déjà téye nañu république bi une semaine bu kenn liggéeyul loolu rek musibal éducation nationale éducation ngi nii une semaine xale yi kenn jàngul lu ngeen foog du pertement pertement bu mag la ñàkk liggéey bi toog pertement bu mag la kon mbir bu amee doole du ko régler teey moo koy régler njiit day am fit ci jamono bu jafe-jafe amee mu mën a taxaw pour régler ko mu sedd beneen bi li ñuy wax am na walla amul xaw ma waaye thèse yu bari li ñu génne bu dee loolu la ña ko def ñu ngi ci biir su fekkee dañ ñi complot la te effectivement ñu saxal ni complot la ka bind complot ba kañ ca woo Qui ñu ci téléphoné ki bokk ci scénario bi ki ko def ki ñu ko digal ki fay xaar <coughs> ki ñu fay nous ñoom ñëpp responsable lañ ci bakkan yi ñoom responsable encore une fois lii am nii lii am nii bu fekkee ni complot la xawma moom la wala du moom bu complot bu yaboo nga tiit am nga plainte sa kanam borom de am nga plainte ci sa kanam borom ndax bakkan yii tuuru bokk nga ci ñi ko sabab soo bañoon a bokk ci complot bi lii du am soo bañoon ne du ma ci bokk lii du am waaye àdduna rek nga jël foog ni fala yem ndeke mbir mi day jëm ak yow ba àllaaxira da lay xaar yowm alqiyam walladi tawalla kibrahu walladi tawalla kibrahu mooy le grand